bay laa ñu Mansour ni huwa moom almuntaha mooy yemukaay ba majdan ci tedd nga ak ci puukare ak ci sang mooy ka ñuy yaakaar sa bés ba nga xam ni day béjjaaw bu weex tàll ànd waasiyaa kawar yépp ba yàlla bindee mbindee fi dajale leen ca aalamul arwaax naan leen ndax duma seen borom jël makkaay jëkk wuyu huwa kooka ar ruuxu mooy secret yàlla wa rahmaanu yàlla kaana nekkoon na bu yàgg munaajiyaa doon déeyaleeg rasulullahi wa kaana nekk na nabiyan di bi yonent aaliman bi nubuwati yàlla xamal ko yonentam nga te booba aadama mii maamam ma nga ca diggante ndox ma saawiya bayna al maai wa tiini ma nga yem ca diggante ndox ma ak ban ba bind ba sotteegul may ma ma jël tuuti miim ya nu waxtaan ma commencé na gàmm xaytu intaha majlisun كان الجلوس جلوس له لم يجلسن بغير ذكر لم يقم
مجلس كان الجلوس له لم يجلسن بغير ذكر لم يقم Mama, what are they?
ربونا لم يجلس غيري ذكر لم يقول
عبد المسلم مامي محمد بني هاشم مامي محمد عبد مناف مامي مناف مناف مامي محمد هاشم مامي محمد عبد مناف مناف مناف مامي محمد عبد مناف بني قصر بني قصي بني كلاب بني رتب بني لوي بني غالب بني زهر مالك بني ندر ندر ندر ندر بني ندر ندر ندر ندر ندر بني ندر ندر ندر ندر ندر بني ندر لالة مزيمة مدركة يسب در مدراي مدر بني مدر مدراي مدر بني مدر مدراي مدر سن الأخو يتكو سن الأخو يتكو سن الأخو يتكو لقد تكو لقد تكو لقد تكو آلة لقد تكو مدركة لقد تكو يسب البر إذا مات عدنان أي عدنان عدنان على فوضى يم جي عدنان جي عدنان على فوضى يم جي عدنان جي عدنان على فوضى يم جي عدنان على فوضى يم جي عدنان على فوضى يم جي عدنان عدنان جي عدنان على فوضى يم جي عدنان وخلعت نزارا وعادا أدنى برزت وعادا أدنى وعادا عادا جاوز أدنى برزت ولسانا وعادا جاوز أدنى برزت نزارا وعادا جاوز أدنى برزت نزارا وعادا جاوز أدنى جسر وعالم وجابت أبناء جسر وعالم وجابت أبناء لقيتك وكنت دارا وعالم وجابت أبناء جسر وعالم وجابت أبناء واو
Adnan!
له مغدا لم يجلس الظلمات خير ذكر الاب يعقوب أسد وكان يامر هذا من يجالسه مغدنا يسر لنا إطواه كان يا ربي في الإيمان
حيث انتهى مجلس كان الجلوس جلوس له لم يجلسن بغير ذكر لم يقم مام شيخ الحاج مالك نينا كان دان نك الجلوس توغو كاي له نيل رسول الله حيث انتهى مجلس فصف مولو ما يم صلى الله عليه وسلم ليلا كان نكون الجلوس توغو كاي له نيل رسول الله حيث انتهى مجلس فصف مولو ما يم na sayyidul wujud yonent yàlla muhammad su ñépp dajaloo di ko xaar mu yëg ne moom la ñépp di xaar bu ñëwee ba jub nit ña ka mujj day toog rek ci gannaawam du jéggi mukk wuti digg nit ña waaye lay yëgal nit ñi ni ñëw na mooy leer gay bàyyi ko ci moom mooy frappe ci jéey nit ñi xeetu parfum ngeen yéen saraax ndax fu mu dugg feeg ñetti foon boo fa duggee xam ni njool ma jaaroon na fa moo tax ku niru njool màkk da ngay set da ngay xeeñ lu neex takk ripp ni ñu ko teg ca keneen nga niru du siy duru juut caana nekkoon na aljuluusu toogukaay lawoo ñeel muhammad xaysu ntaha majlisun ci catu mbooloo ma lam yajlisan ne mësul toog bi xayri dikri te tuddul yàlla walam yaqumi du jóg taxawit bi xayri dikri te tuddul yàlla buy toog tudd yàlla buy jóg di dem tudd yàlla ina alaaji malik ndax loolu njol makka da ko daan def rek bàyyi nit ñi ci nu leen neex mu ni déedéet fa kaana nekkoon ne yaamuru di digle di digal haada loolu mu daan def man yu jaalisuhu ku mu daan toogaaleel alaj mari ni yow yalax wax ja ni yasir lana yal na nga nu yombalal ya rabbi yow sama borom iswatan ak roy ci rasulullahi fil umami ci sunnaam bëgg ga rek am njëriñ waaye bëgg ga balay wér jur topp ga ak roy ga maa bëgg Muhammad maa bëgg Muhammad te lum santaane nga lànk maa bëgg Muhammad maa bëgg Muhammad te lum tere nga def tous yëri la maa bëgg Muhammad te lu mu santaane nga lànk maa bëgg rasulillahi te lu mu tere nga def tous maam xaaji Maalik nee na xilmun lewat lewat wa sabrun ak muñ xayaaun ak am kersa majlisul karimi mooy jataay ku tedd ka di rasulullah jataayam lewat nga fay fekk ak muñ ak am kersa wal amaanatu ak kóolute palaasam kenn fa toroxal kenn palaasam kenn dafa yàq deru kenn palaasam kenn dafa xas kenn wa rafaxu sawti nag yëkkati baat ci kanamu yonent bi xumi tereef na ko fii ci jataayu rasulullahi alquran ne la tarfaxu aswaatakum fawqa sawti nabiyi wala lika jehri baadukum li baata man ma koy wax ngeen di wax ci muy daram ngeen di muy dig ngeen di def muy tere ngeen di bàyyi sangu ak laaxiraan mas naa dëgmal mbooloo mbooloo ba ni bëri ko di ko sopp ma ma dogalin toog leen yegg si nuyu sandi mu alal maach ka nee na ko nuyu koy dox quoi mooy nuyu ko dox xam nga loolu yomb naa dégg ku yor Mercedes di dawal bu taxawul nuyu la noo koy nuyu yow mi dox moo tax ku organiser ci njol màkk nga koy jànge ku fi wàcc ni mu organiser da nga defee ni organiser nga waaye bu sottee organiser woo rasulullahi nee na yusallimu raakibu ala almashi nee na ki war na nuyu kii dox walqaaidu walmashi ala alqaaidi nee na kii dox na nuyu ki toog nee na wasagiru ala alkabiri ndaw li na nuyu mag mi walganiyu ala alfaqiri ki ki riche na nuyu ki ñàkk ki riche na nuyu ki ñàkk xam nga lu tax li la yàlla defal da nga war a gërëm yàlla wàcc ba fekk ki ñàkk alaaji Malik ne xilmun lewat wa sabrun ak muñ xayaun ak kersa wal amaanatu ak sécurité majlisul karim mooy toogaayu ku tedd ka di rasulullah wa rafaw sawti yëkkati baat na xumi aareef na ko fii ci jataay bu njol màkka toog te ni mu sédde góor ni la sédde jigéen yent yàlla Muhammad daan wax ak jigéen ñi di leen jàngal boole leen ci boppam may leen permis ci boppam mës naa toog ci biir néegam moom kenn képp Seydina Omar ñëw di ko seet benn jigéen di ko seet ñel màkk ni ñokket yër bunt bi ne Omar ku fi nekk mu ne ko ah benn jigéen a ngi fi bu yokku nay satude mu ne ko nayet fi mu ne ko kii jigéen la kat nga di ko jëkk a recevoir mu ne ko demoon na xabasa gàddaay teew demu la woon xabasa genn gàddaay nga am te am na ñaari gàddaay kon moo la ëpp périwirité kon ku defee ni lislaam dafa gannaawal borom musóor yi yaa koy yëg waaye man damaa gi yéen tey ak ëllëg
digg jannatu yel firdawsiya waay digg jannatu yel firdawsiya ngi lay xaar jigéen ñi jannatu yel firdawsiya ngi lay xaar xool leen ngi rafet kaaru xool leen ngi rafet kaaru waaw xool leen ngi rafet kaaru seen loxo yi ca kaw ñu ngi rafet rango wurus marjaan etanal la bay faatu awaadi kanal la bay faatu bintu ñëwal nu waxtaan nun day na moon nanu la ani jural nanu doom doom dootu mel ni moom ba mukk mukk mukk seydel awalina seydel axirina jëlal jëlal wayam
ومن أتاه هدايا قل هاتئوا فكن به آسيا في الفعل والشيم لبيك yal naa ko xam waaw dama dégg ñu ni Muhammad dana la war lu àjjana
waa dégg naa ñu wax ko de waaw bu ko yéefar defoon na moom laa lay laaj ah déglu leen déglu leen affaire ngom bu ñu yëfar defoon
ah kii di wecc ku lay xaar mu pare
déglu leen ñàkk sa alal ci yont yàlla muhammad du jëriñ dara tànk mataloo farata yi ku dul matal julli juróom lank weeru koor lank azaka lank aj makka te man ko booy boo ñàkk milliard ci yonent bi du tee boo dee dem safara leer dégg loolu dama koy jox preuve di du duma ko ni leer ne rek teqali koog moom xanaa danaa ko jox preuve waaleykum salaam
إنما إنما يتقوى أضماننا إلى الله في الكلام عليك يتقوى بأن يتصدقوا أموالهم ولا ولا منها ما لا يؤدي الزكاة ولا ولا يسمى الزكاة
إن شاء الله سوف أفتح المسألة ليس فيه مشكلة بعد افتراقنا إن شاء الله Euh, may leen ma ñaari question laa boole ma répondre bi jiitu woon Abu Talib mooy kan Abu Talib turam dëgg-dëgg mooy Abdu Manaaf mooy jur Ali ibn Abi Talib mi ngeen di dégg karamallahu wajhahu njol makkaa ngi ñëw ci loxoom bi nabi amee juróom-ñetti at ci première question njol makkaa ngi ñëw ci loxoom bi njol makka amee juróom-ñetti at jógewul ci loxoom ba am quarante neuf ans quarante neuf ans yee teg huit mois huit mois yee teg onze jours fukki fan ak benn yu juróom-ñetti weer jiitu juróom-ñetti weer ya ñeent fukki at ak juróom-ñeent jiitu ko nga xam ni njool màkka juróom fukki atam tuuti ci des Abu Talib toll ci sukkuraat njool màkka sëpp ko ni ko yaa am qul laa ilaha illa allahu kalimatan axaaju biha laka inda allahi taala bàyyi dama bëgg nga ni laa ilaha illa allah dugg ci diine ji ma sukkandiku ci bu ëllëgee layyil la ca kanamu yàlla ba nga raw moom yonent bi baayam lay waxal ku bokk ak baayam ndey ak baay baay bi ne teg ba yàgg mu ni ko wala qad alimtu bi anna diina muhammadin min xayri adyaani albariyati diina lawla almalaamatu aw xizaaru masabatin la wajadtani samxan bi daaka mubiina yëg naa ni diine jii nga may woo moo gën ci diine yi waaye su ma tuubee ci période bii ñu yedd ma ni ragal dee moo ma tax a tuub bu dul woon loolu dama toppale ci di ngay woote waaye diine ji ngay woote moo gën ci diine ni xarit dee ci kéeféer njool makka dem ca bàmmeel ba di intervenir pour yàlla baal ko sunu borom yedd ko ni ko bu mu amati ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم جادوا ci ab yonent wala ab julit muy baalul yàlla ku nanguwul julli nanguwul woor waxul laa ilaha illa allah ndax kooku safara la jëm nem bàyyi yonent bi moo doon def dépense ci njool màkka gàddu léppam di ko défendre ba njool màkka am ñeen fukki at yu manqué tuuti juróom fukki at yu manqué tuuti te mi ngi ñëwoon ci loxoom bi mu amee juróom-ñeent juróom juróom-ñetti at teewul baayam boobu dem safara kon ku ñàkk milliard doo julli doo woor boo dee dem safara preuve la te bu laajoon débat mën nañ koo génnee ci yeneen source déglu leen déglu leen xam naa ko démb te tey ñëw moom it xam na ma démb te tey ñëw bu werante dee am sa diggante moom yéenay werante waaye man dafa am lu ma doon laaj leeral na ma ko loolu rek laa bëgg alhamdulilah jazakumullah na xayran waaw moom day man duma salma chita man du luñ ma laaj ma tontu ko ndax jol màkk deful woon luñ ko laaj ma tontu ko am na ku ko laaj lislaam mu tontu mu laaj ko liimaan mu tontu mu laaj ko lexsaan mu tontu mu ne ko dama lay laaj kañ la àdduna yi tukki mu ne ko yow mii di ma ko laaj tanewuma la ci man mi ngi koy laaj nem jol ma kay delloo question asek ak man waaye nag question bu ma jël nag responsabilité pour tontu ko dana mel ni midi waaw dana mel ni midi ma ñëw ci sëriñ bale waaye bu fekkee dégg na mbokk yi ñoo bokk lu ñu wax parce que daf ni gis na ay doomu aadama daañu ñàkk ci lislaam lu ne waaye duñ julli duñ woor duñ azaka duñ aj màkka duñ jàngal quran turu diine rek lañ tuddoo kooku alquran ay wax ak ñoom du man إن الذين كفروا أعمالهم كشراب بقيعة يحسبه ظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا القرآن يكون في باي جلي باي في وار باي في أزكى باي في أج مكة باي في جنجال القرآن باي في سنغ فرتاك لا di jëf lu baax te jàpp ni da nga ko fayee ko nee na sa jëf ja poussière la pënd la day naaw ci jaww ji dem yàlla dencalu la pay ndax la ngay def yàlla taxul woon te yàlla jëf ju taxul yàlla du fay wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza ila ibtigaa wajhi rabbil a'la wala sawfa yarda alquran ay tontu du man استاذ اقنعته
إنما فعلنا كفر لكفر هذا الأمر بين بين بينت ذلك بيانا شافيا إن فهمت بينت بيانا شافيا إن فهمت فهمت بينت بيانا
يلا بحر déggoog moom su nekkee nag li muy wax moom rek ko xam mu continuer di ko wax su dee xam-xam la nag daan déggoog moom ndax defe naa lugal arab yi moom leneen la ñuy wax waaye waxatuñ ko langara leneen la ñuy wax waaye waxatuñ ko kooku moom ci waawoon na samp taatam ku ko dégg ci réew mi dégg gu wér boo ko jàngewul bitim réew ci waawoon nga ko jànge may leen ma sama waxtu wàcc ngay ñëw sama waxtu wàcc mu ngay ñëw man dama am habitude su ma dee gàmm bu cinq heures rek wala cinq heures moyen ma daal di tëj la ma doon wax jox woykat yi ñu yeggale soo ma joxoon neuf heures ma dem ak yow ba cinq heures boo ma joxoon it cinq heures moyen quart bu ma yeggee cinq heures wàcc man cinq heures mooy sama heure wàcc ndax fas laa wu ñuy dawal ci pénc mu ne dafa suma yéene xoox moo tax dama am wut heure bu may wàcc heure tàmbali bi nag ci waa gàmm gi lay dépendre suñ ma teelee jox ma yàgg ca lool buñ ma joxee ci lu cate ma wax lu cate rek wàcc man nag maa ngi sant yàlla di julli ci rasulullah di leen gërëm gàmm gi bokk na ci gàmm yi ma gën a neex ëppul nit nag ci gàmm yi may gàmm gàmm gi ëppul nit ci gàmm yi may gàmm mais dafa ëpp discipline ci gàmm yu bare ci yi may gàmm muy benn bi ci des yëg naa ne li may wax neex na leen ba yéen a ngi koy tàqam ci ku mel ne kuy naan lem te waxkat bu ne ña koy seetaan ñoo ko def nit waxkat bu ne ña koy seetaan ñoo ko def nit boo génnoon ci mbedd mi di wax kenn wéru la kenn wëru la waxatoo da ngay waxtu ku la romb rek nga diw mi moom kañ la dof man ko romb muy waxtu rek kon jërëgeen jëfati yàlla na fi yàlla dolli jàmm yàlla na fi yàlla dolli sutura li ngeen bëgg ci diine ji bëgg ko ci mbokk gi bëgg ko ci tariqa Seydu Cheikh Ahmed Tidiane yi yàlla leen ci yàlla defal lu ko ëpp maa ngi leen di dénk lenn rabas koo leen nekk benn l'union fait la force doole ci la kàttan nekk alquran nee na wala tanaazau fa tafchalu wa tadhaba riixakum alquran nee na bu leen xëccoo bu leen werante bu leen teqali koo kon seen kàttan dem boole yoo leen di waxandoo di yëkkateendoo di tëralandoo ku am lu jafe da ngay jafe cher ngeen torop li leen tax a cher mooy xalif général di Tiijaan di Serigne Mansour si bu ne woon jaas fi tey ni may naa leen fajar yi boo kenn julli ngeen lànk dem julli ji te loolu mooy yoon wi diine kenn du ko fowe jàngal